audio bi dana waaw mooy gën a leer de alors yii sax day leer bu ko kii sax day leer waxee waxee maanaam salaamaaleykum waa kay xam naa ruu ak bakkan ak xel ak mémoire bari na daal bari na waaye léegi danañ dañ tàmbalee ci cosaan bi ruu esprit li esprit la ngi tuddee wala wala ah ah mooy nafs ah mooy nafs ah mooy bakkan bakkan am am nañu ko tuddee aussi ah ah am charnel di bakkan
danaa ci dikk maanaam ru- ruu mooy li li li nga xam ne mooy tax yaram wi di dund xel mi dund lépp dund facteur bu mag bi nga xam ne moo bu bu duggee ci nit moo moo mën a wax mën a def nangam mën a jëf mën a créer mën a nangam su génnee ci nit yaram wa dee ruu bi bi ko yàlla dugalee ci yaram wi tabaxee yaram wi bu nag yàlla da da ni ni ko alxaan indee dafa tabax nit ci ban ban la la la ko tabaxee suuf dafa jël suuf jaxase ko daal koy daal koy bi mu jaxasoog ndox mi mu nekk ban buy rémb rémb mi mu daal di koy lakk weer ko ci naaj wi mu nekk salsaaw mooy ndaa noonu nga boo ko dóoree mu am tol muy yëgu noonu salsaaw wal ci ëf ak leeram ëf nag firiwut ëf nii ëf loolu moom kii la aw lakk la yàlla day wax ak noonu te lakk bi mu wax ak noonu mooy lakku nit son lakk wi ñuy lakkee ci lay waxee kon mu ne ëf bi yàlla la ëffee ci noonu jëmm jooju ban boobu daal daal di soppiliku yaram yaram ci wolof mooy luy màgg yaram bu dee ci arab mooy badan badan xam ne léegi yaram foo ko fekk day nooy day nangam jóge na ca dëgër ga kenn dam doon def ñëw ci nooy doon aw suux léegi nag bi bi mu duggee ci biir nag jëmm ji yaram juddu léegi mu am lu ñuy wax am mooy nafs mooy bakkan mooy loo xam ne gis nga ci wolof dañ naan ruu mu jóge ci roog ruu mooy lu nëbb bu du bu su dee su nekkee ci ci yaram gi nag ñu ne bakkan bakkan baa ak kaa kaa ci kaa ci hiéroglyphe yi ci làkku expression jëkk ya mooy firi ruu baa mooy firi am nafs bakkan léegi nag nag wolof nag jël ñaari baat yi baa kaa su ko boolee mooy bu ne ci biir yaram wi su dee nag dafa nekk lu absurde nekk ne bu tuddee ko ruu mooy lu nëbbu léegi léegi gi nag bakkan boobu nafs am na moom maanaam léegi bi bi bi duggee ci yaram wi am na lu ñuy tuddee dund alxayaat dund dund yaram waa ngi dund wala dafa dafa dee dund googu ne ci yaram wi roo gi moo ko ci andi bi dund amee léegi am lu juddu lu ñuy tuddee am nafsu nafsu mooy am mooy relation bi am diggante roo gi ak yaram wi roo moom dafa set. tool nafsu mooy tilim bakkan mooy mooy tilim aka tax aka seet waaye ruu moom ruu moom jaxasuwut ak yaram bi dafa am relation moom rek waaye nag day mel ne ceeñeer lamp bo boo taal ci ab am ndox ak géej nga taal ci lamp di ko siyén waaye xam nga lamp bi jaxasuwut ak ndox mi roo ngoog relation bi judd nag loolee nga ngay séen ci ci ndox mi loola mooy am mooy mooy bakkan léegi nag du tax lii tax yaram wi dund di dund yàlla da dal di indi nekkat kon de moom war naa soxla woo du ko fi dundal bànneex xawa bànneex bànneex bu ëppee lay bon bu yéesee mu bon waaye bu digg doomu baax léegi léegi waaw waaw ba- ba- bakkan wala euh, bànneex euh, facteur la boobu boo xamante ne juddoo na ci euh, bakkan ci la juddoo di ko di di ko fàttali lim mënta ñàkk lim soxla nga xamante ni tey bu du toon bànneex bi am ci sëy kon ni kon kon doom du judd responsabilité bi ci nekk coono bi ci nekk lépp yàlla naxee ñu ci bànneex boo xam ne day tax ba ñu mën ko soxla léegi xel xel ñëw xel xe- xe- xel lu ma jëriñ roo gi nekk na ci yaram wi badan léegi xel roo gi bëgg a bë- bëgg a jëfalante ak bitti bi maanaam bitti yaram wi lii lii la fii nii léegi ban loi yan loi nan la koy atte yaram wi nii nooy na suufe dafa nooy bu làmbee lu nooy mu ne lii de dafa nooy atte bi ci boppam la ko atte jëm ji ji nga xam ne ci la ruu gi ne ci la ci- ci la roogi di di attee ci facteur bu ñu wax xel waaw nga xamante ne euh, bu bu nee nii yaa foofu dëgër na a dëgër ñu ko ñu ko tax mu ne yax bi sama yax da- dafa dëgër te niru nag moom atte boobu eh, noonu muy attee eh, maanaam lé- lé- léegi loola la ñuy tuddee xel tax na xel moom du dara mooy atte rek atte rek la luy atte la léegi nag roo gi ngir mu atte biti bi xel la la lay maanaam maanaam xel lay jëfandikoo nga xam nga xel amut de xel amut de action bi action bi roo gi di am diggante moom ak biti bi loolu moo tudd xel action bi la waaye xel xel nekkul lu am nii mel ni nii mel ne mel ne jëmm lu jëmm déedéet xel moom lu xel moom ab ab kii la opération bi dox diggante ruu ak bitt bi opération boobee la ñuy tuddee xel fu fu fu fu fu toll yéen a naan xel xel mu naqari faj xel déedéet xel kenn du ko faj xel xel du naqari du neex ruu gi ruu gi jëmm ji ak bitt bi ñoo am problème parce que ñun de rek dañ wax xel mu jaxasoo wala ñu ne xel mu wëlbatiku wala ñu ne ki dafa tàggoog sa bopp.
tàggoog sagom leeram tàggoog sagom mooy ku perte conscience waaye xel du xel du jaxasoo xe- xe- xel xel relation ak bitt bi moo jaxasoo waaw action bi ci ci ci bitti leen doon atte xamutul bitti te dëgg-dëgg misaal tey koo xam ne da- dafa tiit léegi yëf yi jaxasoo ci moom eff- eh, eh, données yi yi- yi ne ci cerveau bi xel ci war ko jëfandikoo données yi moo jaxasoo waaye xel moom jaxasuwut xe- xe- xel moom mi ngi xaar rek données yi ne dégg rek mu daal di xam ne lee A la lee B la waaye xe- xel moom du jaxasoo xel lu absolu la ndax moom fonction bi rek la xe- xel amut roo gi fonction am ak ak ak yaram bi ak bitti bi léegi gi nag roo gi loolu muy jël ci bitti information yooyu di ko jóge ci bitti loolu même war a koy denc kooku ba tey du du xel de da da da daan diw xel mi dafa naqari déedéet daa mun téye même war ba baaxut wala dafa gaaw a saturé fees waaye du du xel de xel moom ma ay maanaa lay xam ay sens di di- boo ne un plus un lu war a doon égal deux léegi nag même war ba ca nga dencoon un denc ci un denc ca plus boo leen boolee égal ba égal ba nag xel a ko xam xel xam loolu de sa sa même war ngay utiliser xel mi même war bi lay utiliser pour opération bi mën a dox waaye mais ba tey même war bi moom stockage la stock la boo xam ne mi ngi fii xel mi nag léegi nag di di ko utiliser di ko jëriñoo opération boobu boobu boobu xel la wa nee naa la sànq xel xel amut de existé wu ci biti waaw
fi tollu amut fenn ci yaram wi foo xam ne mas na ko fekk dafa ne fii kat moo am problème fii xel a ngi fii te xel di ko fa mais mémoire xam nañ fu mu fu mu ne ah sax kay ma- ma- ma- matière la ay données la am nañ hippocampe ci cerveau bi cerveau bi cerveau cerveau bi di- di- am na sax leneen loo xam ne ne ne it bi ngi dikk mooy volontariat bëgg def dara nam mo volontaire ci dara ba dama bëgg def nangam loo loolu scientifique yi gisul nañ ci bopp bi gi- gisuñu ko amul volontariat moom fonction la roo gi daa bëgg def dara daa bëgg loxo bi def dara mu jox ko ndigal defal volontariat boobu existé wu ci bitti nekkul nekkul benn matière waaye opération boo xam ne euh, ruu moo moo joxe ndigal ndigal la pour def ko lay tax nga mën koo def loolu la ñuy tuddee vo- volontariat namm dara namm wala wala daal namm du du bëgg de namm damaa namm dem rab sàngam décidé naa ba noppi nammeel googu mooy volontariat amut fenn fu mu ne
nga xam ne kon wa- volontaire yaa ak xel ñoo bokk lu ñuy def dé- déedéet déedéet xel moom opération euh, données yi nga xam ne am nañ ko ci bitti lay jàngat waaw volontariat na nag na- na- nag léegi nag jóg def nangam
kon daal xam nga xam nga toll yéen scientifique yi ma génn forcé ci ci sirop bi laal fenn may gëti sa sama loxo nga laaj man ne ma ndax bëgguñ ko may la bëgguma ko woon bu bu bu- bëgguma ko woon de léegi volontariat boobu nga xamante ne su ne ne may bëgg man léegi léegi kooku moo ko ruu opération boo xam ne ruu ko judd la création ruu la maanaam ki ki- kii daal eh, ma- manifestation ruu ruu moo manifesté wu ci noonu gi- gi- ginnaaw yow mën nga ma tax a yëkkati loxo te man yëkkati moo ko léegi nag su ma ko yëkkatee nag te bëgg ko yëkkati loolu mooy volontariat léegi léegi mu- am na mental mental fi fi ñu toll cerveau bi fi nga xamante ne fi fi la xel di di di gën di liggéeyee lu lu arab na ko ziix na bukk teg ba tey xel xel bu bëggee ñëw ci do- données yi nekk ci cerveau bi fa nga koy jëlee foofa euh, ma euh, maanaa maanaa lu xoromu la loo loo xam ne du du du matière tegro fi mu koy jëlee xel mi ngir mu ji- utiliser cerveau bi dem ci cerveau bi jël fa données yi dafa am feneen fu mu koy jaare xel du xe- xe- xel du jóg rek daal di jëm ci cerveau ba da- da- am na diggante boo xam ne euh, fa la- am na daal euh, am na daal xaw ma place bu bu mu ko jaare boo xam ne mu- mu- xel mi ak ak loola ñoo nit ñoo gën a niroo loola gën a niroo cerveau bi ah mu mu mu rafetlu sérieux bi noonu lu ñuy wax génn boobu mental boobu foofu noonu lée- léeg-léegi léeg-léeg nga ngeen gis am ku ñëw ci ci yéen daa ci wéré di fekk ne jinne jinne koy moo koy moo koy provoqué yéen phénomène bi bi juddu ci bi ko jinne ji provoqué yéen ngeen di jéem a waxal jox ko ay garab ne ko nelawal mu mu nelaw xam nga yéen co- coono bi juddoo ci bu di bu dee fët-fët yi coono booba yéen yéen ngeen ko koy fegal waaye saa bu demee day dikkat ndax li provoqué jëmm ji ba muy yëngoo ko wadd waddi yéen ngeen xamut kooku pro- pro- problème la yéen yéen moo tax yéen moom jox ko garab mu naan rek saa bu dikkee nag jox ko garab mu naan bu naanee bu yeewoo ba xam
léeg-léeg mu yeewu ne la ne la mbir mi dem de dé dé dé dé loo loola loola jinne ji daa taxaw fi moom su su ko neexee dem man ngi dañ ne bu yóbboo am malade hôpital jinne ji da- da- dañ koy xa- ci ci- ci xaar ci biti bu duggee wér fi rek mu génne ay kon loolu kay wàll mais nag samay malaat loolu laa leen di wax bu ñuy dem ci tradipraticien yi di wër xëy na mën nañ am na ñu mën am na ñu yàlla ma bàyyi ko waaw xam-xam dañu koy sukut waaye am na ñoo xam ne mënuñu da- dañ taxe dañuy naxe dañ taxe te ñun dama leen di wax ne leen suñu garab yi tubaab bi ñoo ko defar waaye am na lu ci nekk dara ngi ci dara ngi ci dara nga ci Dara nga ci.
xamante ne waaw te nit mën na ñëw ne mi ngi gis ay mbir Hmm.
daal ko dara moom mu ne mi ngi gis waaw jaxasoo ak lépp bay bëgg a daw ak yu mel noonu Mm.
yooyu bu ñu ko joxee suñu garab yi Mm.
gis day ne dem dana nelaw waaye bu yeew dana ne gisatuma dé- dé- dé- foofu am na ñaar waaw day imaginer bu dee imaginer dara cerveau bi euh, moo am problème waaw ci imagination rek la ko ko- kooku bokkut ak nag jinne ji waaw xam nga am ki imaginer mën na nekk ci xel waaye ki la ne maa ngi gis ñii Hmm. di di nee na maa ngi gis gaynde di di di di imagination la ci imagination la ah imagination la waaw mën na nekk ci xelam mais imagine ima- xam nga léegi bu bu imaginer dara day mujj misaal tey del xool jant bi suba teel ba jant bi leer boo ne ko jàkk bu yàggee du boo xoolee doo gis fenn gis waaw waaw loolu
te loolu lu am la xanaa am na da ngay imaginer dara ba mujj di ko gis da da ko gis waaw loolu ku mel ne imaamul xasaar yi day tere di dugg xalwa te amoo ay bagage mu ne boo ko defee jinne yi da- da- dañ lay foyee da ngay imaginer ba jàpp ne li nga imaginer dëgg la te amul sa imagination la rek rek ci ci ci ci rek la Lé- léegi nag mu amaat leneen waaw foofu da da dana xóot moom bëgg mooy mooy ruu gi ak relation bi mu am ak ak jinne yi maanaam ruu yi ni moom Mhm.
jinne malaaka maa daal euh, relation ruu ak lu lu absolu loo xamante ne moom du du matière lo- lo- foofu foofu foofu foofu fu la ñuy wax ma maarifa maarifa nga xamante ne te ne fu aat bu dee ci alxuraan al fu aadu kooku du xalbu fu aat mooy fi nga xam ne fi la ruu di mën a jëflanteeg ay moroomam kooku al al fu aat la. nga xamante te- te ne tey ruu moom kat eh, sun boom ab suuf yaa ngi nga xam ne day absenté wu ci bitti gi nii ngir ne da daa gis m- malaaka daa gis jinne di jëflante ak moom kooku almaarifa wala bokk mu- mu- mu toog eh, seen seen ruu gis ruu ruu loolu leneen la moom alors loolu xanaa du du bët yëpp a koy gis ah.
ah waay ndaw waay ndaw waay ndaw oo ci wa- wala toog fii di seen makka kaaba ga xam nga xam nga kooku bët bi gisu ko ruu gi moo ko gis bu reflecté wu nag ci ci bët bi bu rafetee ba- ba- bët bi mel ne daa gis te gisut loolu foofu baax na yoo xam ne loolu dafa nuróo nag li mu doon wax ci bu jënd ji mu ne maa ngi gis dara mu ne gis loolu loolu imagination la imagination.
waaw moom moom amut existé wul voilà parce que même ñun bu ñu bu ñu bu ñu waxee hallucination aussi parce que am na foo xam ne imagination la yor par exemple nit ku toog ne moom mi ngi gis boppam mi ngi nekk ci jaww ji ak ay di naaw nekk ci planète yi nekk ci loolu ñun imagination la yor dara waaye bu bu nit taxawee par exemple toog cinébar wala yu mel noonu bay gis gaynde waaw day gisuñu dara waaw ñun loolu hallucination lañ ko tuddee
waaw waaw mooy ixtiraab ci arab ixtiraab mooy fekkente ne- fàttu dafa fàttu mbir am na Mm.
nit ki moom am beneen gis-gis bu mu ci am Mm.
boo xam ne bu waroo ak lii ci Danañ waaye par xam.
exemple nga nuyu nit mu reetaan nga ne kii de daf mooy complot waaw loolu interprétation lañ ko tuddee waaw dafay interpréter parce que moom gis-gis bi mu ci am gis ne ko reetaan na waaye mi ngi jàpp ne moom da koy complot yéeneew ko lu baax foofu nag am na leneen waaw
kii ko naa ko ba def naa ba noppi naa ba noppi am ko foofu am na beneen soppi maanaam ci psychologie waaw Euh, damaa dem Marseille Marseille laa dem euh, France dem fa dem ci aéroport ba war a jënd billet ma agsi nii a soxna su su- su jaay billet billet ma ma ñëw nuyoo ne ko da da- dama bëgg jënd billet bisimilah jëm soxna si tàng may teg waaw soxna si man Marseille maa ngi fi soog a ñëw dëkk bi maa ngi fi maa ngi fi soog a ñëw maa ngi soog a ñëw ci aéroport bi kon soxna si kon moom musuma gis lan moo ko doon merloo ci man ma ne ah kon mën naa am daa am problème ak benn noir bu niroog man bi ma gisee sous sous conscience mu ubbi ko mu fàtte ma di gis kooka war koy baax dem ci kenn jënd
subconscient
subconscience am mu mu mu ubbi ko muy gis nag ka ka ko tooñoon ndeke dama gisuma
te loolu ñun illusion lañ ko tuddee.
ay gis lay nga ne keneen lay gis ñu tuddee ko illusion.
waaw ma ah te yàlla macha allah kontaan nañ la loolu xam naa jël nañ fi loo xam ne dañ ko gëstu dañ ko dé dégluwaat bu baax a baax xalaat ci encore ndax mënoon nañ ko bañ a ceetal ma indil beneen problème léegi li nga ne da da ngaa jàng kii ngir ngir kii sa kii sa bopp man damaa damaa ne- nekk nekk Sénégal dama dem Caire euh, euh, bañ ab sombi sombi su ma ko tiimee rek sama xel mi day tey mënuma ko lekk ma dem Caire nag jàng psychologie laa jàng ma ne naa naa xool ba xam man léegi lan moo tax ma ma bañ ab sombi am na lu ñu tuddee transcendentalisme bàyyi li ko nii rek di xalaat te dënk ko fenn da nga dem ba ba ba complexe ba ñëw man ma ma tiim ma tiim somb bi bàyyi li ko somb bi dem mémoire mémoire bi ubbi ko muy dem ba ba su- ak suba goo xam ne da- dañoo jógee tool nawet la dikk soxna sax maanaam ku sant Njaay la soxna sant Njaay xam na daal ñu indil boolib sombi goo xam ne weñ yi mango yu yu yu dijj yooyu bu bu la xuma xuma yu rek tong ci kimit gi ndekete da da da ko dugg suba mu sedd guyu ma tibb weñ daa ngi nii tong ci kimit gi ma tibb seex image su weñ yi ak seddaay bi taqaloo dama ko ci ban complexe mu daal di baax nde ndekete kon saa bu ma tiimee soom bi complexe boobu mu ubbi ko ma ma xel mi jàpp ne kat sombi bi mooy sombi booba lo- lo- lo- loolu la wolof di wax xel mu teey xel mu teey bat bu bat bat bu riis la keroog laa ko jàngal xel mi bu dee mi ngi yëngu fonctionnement bi bari xam nga léegi données yu bari lay lay war a laal tëlut ab sombi waaye nag saa su ko talee nga xam ne seddaay ba ak weñ ya image bi teew fi moom loolu xel mu teey bu bu teeyee ba dal day am jot moo tax détails yu ñàkk solo yooyu mu mu- mu kii ko wax na kon
olof olof de da ko indi tur bi dëgg moom.
ok léegi lan nga def ba dindi ko.
léegi nag bi ma xamal loolu ma ne kon léegi damay atte ne kon sumbi bii du du du booba keroog laa ko lekk mu jeex ba ba tax na nag yéen su ngeen dee faj seen malade bi dangeen koy dimbale ne ko yaay faj sa bopp de man mënuma laa faj waaw loolu dañ koy faral di wax sax dañuy gunge rek ñun dañuy gunge rek waaye voilà rek nit ki mooy faj boppam. waaw nit ki mooy faj boppam. waaye daf di ne dañuy yóbbu di indi indiwaat da wax nga dem ba gis mbir bi ah waaw loolu de mën naa ne da nga bëgg a dem te ne ah fële boo demee di nga gis am na mur wala am na piège bu nekk foofu noonu boo deful nag buñ ko cee sara loolu mooy suñu rôle waaye dañuy faral di wax ne yaa yor sa cëggal guy yaa koy yem ñun dañ lay gunge rek.
yéen su bu ñu indi woon tey am mbott béy gi mbott béy gi ragal mbott nu nu nu ngeen koy kiyee mu mu ragal mbott.
waaw foofu lañ ko tuddee.
daa nu ngeen koy faje d'abord dañuy toog dañuy waxtaan ak moom.
Hmm.
ci waxu mboot.
Hmm.
wala ñu laaj ko mu wax ñu lan la xam ci mboot ci biir bureau bi.
waaw mu wax ñu ci xam ci wax après ñu jékki-jékki wax ko sax ne ko dessiné ko.
Hmm.
mboot loolu mën nañu waaye ñu dem ba ñu après mën nañu ànd ak moom.
Hmm.
dem ba gis mboot.
Hmm.
waaw bu fekkente ne gis na ko léegi dawul. ah ñu koy commencé ñeme.
Hmm.
waaw loolu tamit ci ay xeetu ci xeetu faj la.
Hmm.
loolu dañ koy dañ koy faral la ñuy wax thérapie cognitive comportementale.
Hmm.
dañuy xalaat ba xoolee bi ñu commencé bureau di waxtaan ak moom ci biir néeg Hmm.
di ko wax ci mboot. wala moom mu wax ñu luñ ci xam.
waaw après ñu ne ko dessiné ko.
Hmm.
loolu yëpp ci xel bi la ñuy xel- liggéey.
waaw waaw waaw après nag ñu déplacé wu dem ba gis mboot.
Ah.
comportement bi.
Hmm.
bu demee nag ba gis ko te dawul.
Hmm.
ak ñun.
Hmm.
waaw ñu koy commencé ñeme ànd. après nañ dem ba benn instant dañ koy bàyyi moom kese mu dem.
Hmm.
waaw bu demee ba gis mbootu te te dawatul daal mooy kon loolu.
déet dominé déet bu dawee nag
ñu delloosiwaat rek delloosiwaat bi ñu xam ne di- di- di- liggéey bi xëy na di ko kay xëy na liggéey bi des des na.
léegi nag bu dee daa ragal mbott bëgg ragal na mbott ngeen diseñal ko mbottum nangam wax mbottum àgg nga indi mbott yow yor ko te ko te ko sa kaw loxo mu gën a ah yow tey matte de ne ko ah kii kay matte muy matte
waaw moom dama gën a gaaw bi xanaa waaye dafa baadu dafa toog baadu daw déedéet déedéet déedéet déedéet day toog nee moom nga jël mbott mbott moom nga xam ne miin na ko nii ci ci di ko gis nga jël ko nag yow yow téye ko sa loxo nag naa ko mu bëggee xool mbott mi ak a rafet xool couleur bi nangam xool bët yi xool nangam ji bu kii nga nga nga ne ko te- te- te ngaa xool mu àddi nga nga ne ko rayal ba xam nga xam ko dé nea nangam mu mu- mu naan nii nànk dem ba xam ne moom léegi léegi moom du du ko lor dootu ko leer quoi jeex na boobu mooy mooy mooy bu gën a gaaw bi waaw day mujj mbott loolu nag xanaa mooy bu gën a gaaw bi moom waaw da nga wóor lépp mooy bu gën a gaaw bi ndax am na ci benn joueur boo xam ne Beckham lañ ko doon wax moom dafa ña dafa ragaloon avion waaw moom joueur bu amoon tur la waaw Dennis Beckham xaw ma ndax da nga yéen koy fàtt fekkante ne ñu doon suivre match mais dafa ñemewuloon avion bu ñu doon kii sax moom day jël oto wala ak comme ça wala ay autoraay ak yooyu avion boobu ñemewu ko ñu mel noonu loolu genre xeetu xeetu faj boobu lañ moom lañ leen di defal si sob siru thérapie cognitive comportementale mais dañ koy associé aussi ak ay garab ay médicaments gis nga nag gis nga li wax nii moo gën a gaaw li gaaw a jël mais li nga wax nii moom mooy gën a gaaw moo gën gaaw a gaaw a jël mu dee moom moo moom moo doon moom moo doon gën a gaaw ak ak la si gaaw a jël jërëjëf dañ ci war a découvrir dafa bëri surtout wàllu xel wala xam-xam ci wàllu xel ak yu mel noonu dafa complexe daal complexe la lool lool lool lu lu lu complexe la waaw c'est très complexe xam naa dama la dénkoon boo dee wax ak sa malade bi français noo ko mën a bañ a waxee moo gën wolof yi nga xam ne it wolof yi it lu mu gën a woyof a gën waaw pour ñu ñu gaaw la mën a ko communication daal bu amut seen diggante mooy mooy mooy liggéeyoo
ndax ndax am na ci malade yoo xam ne ñoom dañuy jaxasoo li ñuy tuddee schizophrène waaw xamante ne ñoom dañ perte de contact avec la réalité maanaam mën nañ nekk toog ay jour duñu sang solo yëre yu xotte bu may déranger wu leen xëy na ñun nekkal lay déranger wax ñooñu mën na am xew-xew sax mu am mar de dëj wala yu mel nit yëpp di jooy moom du ko sax yëgal yaram loolu schizophrène ñu mel noonu parfois bu ñuy wax dañuy am seen propre mën nañ di wax loo xam ne sax yow doo ko xam sukut bu ñuy wax ak ñoom parfois da ngay dem ba wax da ngay jékki-jékki sa bopp day tàng jër jër jër boo ko toppee da ngay yaakaar ne kii daf lay daf lay jaxase day mujj sax ne teg xaar boobu nag ñun li ñuy def mooy garab yi la ñuy utiliser waaw garab yi aussi daal am na lu ci lu ci yàq tubaab yi ñoo ko defar de waaye xam nga am na lu ci yàlla lu ci yàlla déedéet def cerveau bi la cerveau bi bi lay def ci équilibre mu am équilibre bu demee ba dëkk bi ba ne teg jeex na ba ay fan nga xam ne léegi mën nañ wax mu dégg waaw nan lañ koy xamee mooy ñu ngi wax mi ngi ñuy tontu waxee tontu baa ngi jóg waaw comme comme comme islam
daf mel ni
léegi léegi léegi nag xel mi xel mi lu ñu fexee ba ba ba ba mu am rapport ak bitti bi problème la
ñu amee relation ak guddi waaw waaw waaw parce que xel mi sax dara sikku ji waaye moom bitti bi am problème
te xel mi dara sukk ci dara sikku ji de est-ce que dara sikku ji léegi du mu amee problème ak guddi bi mooy mënul nekk ak nit ñi wala day nekk di dóoraate wala day
léegi
jël jël ko jël ko asmoon la misaal tey bu nit euh, doom doomam faatu mu metti ci moom lool nga xamante ne du du mën a nelaw mag ñi ne wu- jël leen bu bum xale bi faatu géganal ko ko su koy géganoo dal ne sërëx nelaw nelaw yu xóot yi- yi- te xam nga loolu xetu xale bi bu bu- bu ko xeeñee day absenté wu day fàtte ne xale bi ju- jóge na fi ci saasa ci moom ci saasa rek bu koy géganoo ci saasa daal nelaw te- moo- moo gën a gaaw médicament yi kon léegi xel mi fàdd woon xamatul bitti bi léegi lëkkali nga nga nga ko ak bitti bi moom moom moom dafa àtte ne doom ji dem na du du ko gis Oh.
nga nga andi mbuum doom ja xet gi xeeñ ko mu ne ah doo ko muy kii muy xeeñ xanaa kon anamul xanaa kon mi ngi fi kon
ndeysaan bu dee foofu day jeex loolu nga xam ne
oho laa ilaaha ma ngi jàmbar lañ
bu dalawee nag dalaw bi dana ko tax mu mu dal.
day daw Mën na toog ay jeex jours nelawul.
na kay jeex na day daal dal bu bu yeewoo rek ndax da- day nelaw nelaw yu xóot xam nga nelaw yu xóot mooy nelaw sax te doo gént nelaw Hmm.
dëgg doo gént Mhm.
ndax boo boo- sooy gént da da ngay sonn
laa ilaaha illallaah kay lii tax ma am na ñoo xam ne dañuy mu gént dara ñàkkatoo xepp ci Je- jeex na ci biir gént cauchemar ci surtout ñi nga xam ne dañoo dund dañoo dund ay yenn événement yu yu doy waar yi sukkur waaw accident sukkur wala soldat si ñu Waaw.
gis ay détenus yu rey ak yu sukkur mel noonu.
waaw sukkur waaw yu mel noonu parfois mën na lay def ay fe di la feeñuwaat Mhm.
koy def mu mel ni image bi gént, image bi di ñëwaat day day bees dé- dégg nga mbay bi bi bi naa photo bi si kooku du ma ko xool ma damaa may téye image moo tax suur doo doo koy téye
waaw ak ak ak ak dégg gi itam lu mel noonu Mais dé- dégg dé- dé- dé- dé- image bi gën a dis moom ci man waaw ndax ndax- ndax damaa sensible waaw li may yëg- li li may yëg daa kii damay yëg lu baree baree bari waaw waaw moo tax mu mu mu moo tax man attanu ma ko
ay waay waaw bala ma ko fàtte ci fàtte sax laa ko mën de moom waaw waaw waaw waaw.
mën naa bàyyi xel baax na baax na kon jërëjëf kontaan nañ lool waaw macha allah yàlla yàggal la fi.
Amiin waay, amiin.